bismini la yakfini akdar ya allah safil baqa bihi li fika ya allah ya man lo amru ya man la sharika lahu jërëjëf Ahmadou Bamba gën si Xaadimu Rasuul moo gën si jërëjëf Ahmadou Ba ki gën si ñun moo gën si ñëpp jërëjëf Ahmadou Ba ki gën si ñun moo gën si ñëpp jërëjëf Ahmadou Ba ki gën si ñun moo gën si ñëpp jërëjëf Ahmadou Ba ki gën si ñun ci ñun moo gën ñëpp jërëjëf jëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul jërëjëf Cheikh

defal ni arrière ve ve la ñu ve la bopp bi génn ve na cat bi génn na cat bi génn waaw ve bi nii la voilà nii lañ ko soxla ve voilà ve ve lañ wax taxaw leen yéen sur place religieux

tabarakallah tabarakallah tabarakallah tabarakallah tabarakallah tabarakallah ba nga ne ñu may ñu tuuti ñu may na tabarakallah waaw nañ déglu tuuti nañ déglu nañ déglu nañ déglu ne leen déglu te taxaw nañ déglu te taxaw foofu taxaw leen foofu bismillahi wa ala millati rasuli wa manhajil xadim innama al ahmalu binniyaati dañu koy taqsiir ndax jamono la ki yeeyoo cant yépp bu ñu ko ko joxee ba noppi mu jox ko ki nga xam ni moo ko njëkk sant mooy rabbu samawaati wal ard moo njëkk sant ku tedd kii Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul oh. bu nu dajalee cant yi jox ko ko ba noppi moo xam da koy jaarale ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu baaxoo def moo xam da ko koy jox mubasharatan rabbu samawaati wal ard bu ñu santee ku tedd ki cant yëpp a ngi ci biir amatan waaye sant itam ki nga xam ne mooy jëwriñu borom xasra bi imaam Cheikh Mbaye ak njabootu alhaji jiiri yëpp di sant itam honorable Mbéri ak soxnaamam ak doomam di sama doom di sama soxna di njaayam Mbéri di nuyu gouverneur beeg préfet ñëpp xamal leen ni rek li tax mu demee nii doon wàññi mbooloo mi bëgg ñii dem Touba ca kër ga am ci ñenn ñu ñëw fii rek ziyaara màggal ak man ci yoor yoor bi lu yàgg nag ndax dañu koy takk siir takk siir mooy looy gàttal moo tax ñu koy yemale ci fanweeri minute ak ñett xam ngeen ne masque yi bu état jàllee communication bi nu ci jaarale ñun di xam ne fàkk kàbb laa waxi bu tedd ki la te ma wax bu naa fi fi ma daa indi saafi moo tax ndem maag yéen ñoo bokk ñoo bokk max masque boo xam ne dafa invisible muy xafisani mbaa muy xasamani mbaa muy najjaani mbaa muy allamani man bil hudaa mbaa muy naajaani ba léegi masque yi mën naa wàcc ci ku mu neex xadd fakk kabola bi li tax mu ciy figuré ñaari kilifa am a cheikh al xalifa capen Touba di cheikh Mouhamadul Mokhtar ak chef bële di arais Macky Sall kon en tel day mel ni état tax république tax chef d'état be tax waaye xadd fakka kabla bi ci ne dàng nag boobu moom kilifa gaa tax ca penku kilifa spirituel am kilifa temporel rajo bi nag bi ma koy njëkk dégg defe naa ni man fu may njëkk dégg rajo li may njëkk dégg mooy jërëjëf Serigne Touba jërëjëf moo tax jàngkati xasaay bi xër nañ lool ñoom maam góor waaye ba léegi xamuñu moom waaw te booy wut lu ma neex nag dafa am foo may dàkk ndax moom gënoo maa neex baat gënoo xam espace ak temps gënoo ma koo maîtriser yéen jàngkati xasaay bi man neexu maa jàngal xasaay jërëjëf Serigne Touba nag ñëpp a ko man ñëpp a ci yam bu dee xasaayit dañuy xool ku am njàngam neex ak ku am njàngam neexul ku maîtriser temps ak espace ak ku ko maîtriser wul waaye jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñëpp ci ah kon ngeen xam ne moo gën di dara loo xam ne ñëpp a ko man ñëpp a ci yam moo gën di dara rajo daal ku naan ko kundong ci sama wet dama koy dégg bala ngaa wax dara njëkk maa waxal loolu fekkee da dugg sa bis fenn mu leer nañ neexumaa jàngal xasaay waaye jërëjëf Serigne Touba noo ko waxee dafa dafa ndar képp lépp jërëjëf ku ko man wax ku ko man di wax ak noo ko waxe day aw yoon lu ne ma nga caa jëm doon def loolu naa ngi gis Serigne Touba ba caa nga gàtt am na fenn dara

li nga may wax disponibilité ak ak mbaaxam man leen nag lu naturel la ci moom ndax moom fu mu nekk njabootu alaaji Sëriñ Sall yëpp nga fu mu nekk njabootu alaaji Jiili Mbay ñëppoon na fa xam ngeen dafa tàng bu ngeen gisee ma tënku ko ci fanweeri minute ak ñett di dund soxna Mariama Bousso Jaariyatullah li faratay julli ak sunnay julli di dundum yonent yàlla Iisaa bu ngeen gisee loolu mooy temps bi ni mu demee ak ni ma ko waxee woon daanaka euh, bu nu neexee sax yemale ko ci mbàkki neexee yemale ko ci vingt deux minutes vingt deux mooy mbàkki ndax damay bëgg am na nu ngeen daan màggale ci seeni woy ak seeni xasaayit loolu bu ko defee dama leen ci bàyyi ànd ak euh, Mahmoudane ak lu Mbéri dellu ci biir bu ko defee ñi nga xamante ni bii mënuñoo ñàkk a bañ a ak ñoom ah te ñu di ay kilifa ñu ma leen di indil ndànk ndànk loolu la ñu xam ngeen ni presse bi xam ngeen ni ñëpp Tuubaa la ñuy waaw soxna si moom da nga koy ndem man maa ci biir man nga daanaka man ngeen ko dugal ci biir bu leen ko taxawal waaw ngeen ko dugal ci biir moom it ñu ngi koy ndax euh, bi ñu ñëwee ba tey maanaam yenn lul fanaanal wax naa ko léegi yenn lul fanaanal bu ko defee na ko waat di waat yëpp ah moom moom sama doom Lamine nag dañuy nangu mbir ci ñoom mer yi ci ak Njaay euh, ak ak Lamine bu Cheikh Ibrahima Diaw waaw dañuy yi nga xam ne ñoom laa bëgg na ñu jiite jeunesse su région bi yëpp waaw ci Hizbul Haq nag parti de la vérité bu ko defee nag bu demee ba ñoom ñu reprendre seen liggéey nag man ñu bàyyi ma ci sama révolution gis ngeen col gi waaw jamono day ñëw da di gis may maajloo ay chinois jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. waaw loolu moo tax nag ñoom laay charmé. chinois yi ñoom laay charmé. waaw chinois yi laay charmé. waaw xam ngeen ne bis bi bisu mbégte la. tey tey. Bamba jar na tàng tàng. Bamba jar na tàng tàng. Ndaxam jar na tàng tàng. Bamba jannatan wallahi Bamba jannatan Bamba jannatan wallahi Bamba jannatan Bamba jannatan Bamba jannatan ngi Bamba jannatan ngi ngi Bamba jannatan ngi ngi Bamba jar na dange dange. Bamba jar na dange dange. Bamba jar na dange dange. Bamba jar na dange dange. Bamba jar na dange dange. Bamba jar na dange dange. Bamba jana dange dange Bamba jana dange dange Bamba jana dange dange Ata anaba Bamba jana dange dange Bamba, dangi, dangi. Jarna Bamba Jarna Nange Nange ak jërëjëf Bamba jar na dangi dangi Bamba jar na nangi nangi Bamba jar na dangi dangi Bamba jar na dangi dangi Bamba jar na dangi dangi Bamba jar na nangi nangi Bamba jar na dange dange. Bamba jar na dange dange. Balam balam. Bamba jar na dange. Balam balam. Allez Nabou. Avancez. Bamba jar na dange dange. tey Bamba jar na dangi dangi nuuru si góor yi Bamba jar

Bamba jar na nangi nangi Bamba jar na dangi dangi Bamba jar na nangi nangi Bamba jar na dangi dangi Bamba jar na nangi nangi Bamba jar na dangi nangi Thank you. Xaadimu a gënal jërëjëf a Bamba gënal u bu baax balak balak danda jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul a si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën si ñun Xaadimu Rasuul gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën si ñun Xaadimu Rasuul gën si ñëpp jërëjëf si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba بسم الله لا يكفيني ak daara yàllaahu safil baqaa abihi lii fiika yàllaahu yaa man loo amru yaa man laa sariika lahu